OFNAC dañ ko fee teg bu dee ñoom gis nañu lu jaaduwul kenn def ko mu nekk ci nguur gi dañ koo war a wane fañ ko war a wane bu dee ay topp ci justice am na ñu topp leen ñooña ñu may leen ñu défendre bu ñu defee dara ñu condamné leen bañ ko bañ leen a yërëm dëgg mooy loolu ndax sunu alal kenn waru koo foye alalu réew mi kuñ ko jox da ngaa war a rendre compte réduction des comptes bi dañ koo war di def te bañ a ñëw rek di ragalante gannaaw di tàccu lu waay def ñu ne baax na te fekk la ngay def sa poos nga koy defee defoo ko pour kenn te doo rendre compte man loolu moo ci suma xalaat